Oui, bonjour. Bonjour. D'accord, donc je suis le professeur Jean-Louis Correa, je suis membre du comité scientifique. Je suis à votre disposition, mesdames et messieurs. Donc Wolof la ñuy dooree ah jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sant ki seen euh, teewaay tey bi nga xam ne gannaaw ayubës boo xam ne président de la république woote woon na dialogue national ngir euh, réew mi mën a waxtaanee lu jëm ci wàllu yoon jox ñu itam tëralin boo xam ne ci lañu war a jaar war ko topp ba nga xam ne bu ñu génnee ci waxtaan wi li waxtaan wi di jur dinañu xool jébbal ko ko moom ci ay pexeem ak sañ-sañu mu xool ana lan la ci jël pour doxal doxal ko ayu bés a ngi nii ñu dajaloo fii ci SICAD di waxtaan waxtaan bi nag pour mu mën a antu am na ay pexe yoo xam ne tegoon nañ ko maanaam ci wàllu jëfin ñaari kuréel lañu amoon yoo xam ne benn bi ci wàlli réforme la doon wax muy coppite yi nga xam ne moom lañu ñu war a indi ci ni yoon di doxee ci réew mi bi ci tegu dañu doon waxtaanee modernisation maanaam ana yan yeesal la ñuy indi ndax mën nga indi ay coppite te doo yeesal waxtaan boobu ñu amoon ko suñu biir ba jàpp ne li nga xam ne moom la ñu président de la république waxoon nañ ko waxtaanee muy réforme coppite ak modernisation yeesal naka lañ koy jëmmale commission yooyu am waxtaan ci ayubés waaye pour waxtaan bi gën a mën a antu li ñu def mooy commission bu ne kuréel bu ne dañ ko tas ci yeneen ñaari kuréel yu ndaw kuréel bi ci njëkk muy bi doon wax ci wàllu réforme dafa euh, tënk li nga xam ne ni nga xam ne euh, yoon noonu la doon doxee ci réew mi waxtaan ci ba pare xool ana lan lu bees lañu ñu war a mën a indi ci doxalin boobu nga xam ne yoon mu ngi koy doxee ci réew mi ba tax na dinañ ci dellusiwaat commission bi ci yan proposition la indi waaye bu ñu ñëwee itam ci wàllu ni nga xam ne noonu lañ doon liggéeyee amoon na plateforme bu nga xam ne ci xarala ji bees yi lañ ko lañu sukkandiku pour teg ko muy plateforme jubbanti ci biir plateforme boobu liñ ci jublu woon li ci président laat la jublu woon mooy naka la ñuy def ba nga xam ne sénégalais yi nga xam ne jotuñoo mën a ñëw ci waxtaan bi am fii ci Diamniadio ndax dañu ne senegal am ci yeneen euh, euh, yitte yu ñu ne wala ñii itam nekk bitim réew naka la ñuy def ba ñooñu nga xam ne ci réew mi la ñu bokk am seen xalaat bu ñu war a joxee ci waxtaan wi naka la ñuy def ba ñooñu mën a joxe seen xalaat ci waxtaan plateforme boobu lu ëpp ñeenti junni ci sénégalais dugg nañ ci plateforme bi joxe nañ seen xalaat xalaat bi bi ñu ko joxee ñun ak ñi nga xam ne ñoo ne ci commission euh, scientifique bi segg nañu xalaat bi ba tey itam ñëw nañu jël xalaatu sénégalais yooyu boole ko ci biir waxtaan bi nga xam ne commission réforme ak commission modernisation waxtaane nañ ko bu ma dellu see ci commission réforme bi nga xam ne jox nañu ay conclusion dafa indi lu am solo xam nga bu ngeen gisee waxtaanu yoon bi nga xam ne sumb nañ ko dafa am fu mu jóge guddi yi lëndëm yi nga xam ne Sénégal jaar na fa ci weer yi ñu génn ak at yi ñu génn day firndeel rek ni nga xam ne réew mi noonu la ñuy gisee yoon xam nga yoon ni muy doxee ci réew mi ak képp ci ñun boo ko laajee naka nga gisee yoon dafa utee dafa safaanu moom la tubaab di wax imaginaire yoon boo bëggee mu dox ci réew dafay fekk ne ni réew mi ni yoon wi di jox ni yoon di joxe ak yoon ñi nga xam ne ci seen kaw lay dal wala ñoom ñooy sukkandiku ci yoon day fekk ñu mu am méngale boo xam ne dafa dox ci diggante ñaar yooyu ba tax na bu ñuy wax waxi imaginaire mooy colka bi ñi nga xam ne ñooy àtte naka la ñuy solo ban yëre la ñuy solo boo duggee ci tribunaux yi euh, li fa nekk ci jumtukaay juge ak yi di ko utiliser naka la mel est-ce que loolu nuroo na ak ki ñuy àtte moom naka la gisee magistrat robb yu ñuul yi ñuy sol robb yu xonq yi ñuy sol marto bi fa ne galay ba fa ne ka ñuy wax ci tubaab Thémis nga xam ne benn euh, buur la boo xam ne ci Grèce antique la nekkoon yooyu yëpp dafa doon ci wàllu li ñuy wax tubaab imaginaire moo naam maanaam ñun ni ñu gisee mbir mi est-ce que yoon ni mu tëddee niñ ko tëralee ak ñun niñ ko gisee est-ce que méngoo loolu itam dafa doon waxtaan boo xam nit ñi waxtaan nañ ci bu baax ba indi ci ay xalaat ñu ne ci wàllu gis-gis nañu delloo lépp ci nga xam ne amoon na fi bu njëkk mooy wàllu Égypte Égypte amoon na ku koo xam ne ku mag ku ñuy wax maat ku fa nekkoon nga xam ne boo nee africain wàllu yoon rek ñu ci bari seen xel day dem ci maat loolu yëpp waxtaanee nañ ko ñu ne naka la ñuy def ba ci wàllu symbole yi maanaam misaal yi ci nit ñi yoon naka la ñuy def ba balance boobu xam ngeen bu ñu nee yoon nag ñu bari seen xel day dem ci balance boobu noonu waaye balance bi du ñun dañ ko jéggaani naka la def ba misaalu yoon ci réew mi doon ay misaal yoo xam ne ku ko gis dina xam ne ah man kat fi ñu may àttee dëppoon na ak man ni may gisee ak ni ma xalaatee ne yoon noonu lañ ko war a àttee loolu doon lu am sol maanaam bu ñuy wax ci tubaab baatu décolonisation décolonisation foog ñu xool itam ci nga xam ne tubaab yi noonu lañu tënkee woon yoon ci réew mi tëggee yoon ci réew mi naka lañuy def bu ñu génnee ci waxtaan wi ñu tëggaat yoon neneen fi ne nii waxaguma kuréel yi ak jumtukaay li may wax rek moo ci misaal bu nga la nee yoon naka ngay gisee yoon moom la tubaab di wax imaginaire imaginaire boobu misaal boobu moom la ñu bëgg bu ñu génnee ci lël bi ñu xool naka la ñuy indee ay coppite ci loolu yépp nit ñi waxtaane nañ ko am na itam ay euh, yoon ak ay saafara yoo xam ne teg nañ ko ci li ci des mooy euh, commission yi li ñu bëggoon a waxtaanee. mooy bu ñu ñëwee fii génn fii te waxuñu sénégalais yi li nga xam ne moo tax ñu ñëw fi ndax li tax ñu ñëw fi mooy li fi xewoon lañu bëgg mu bañ fi xewati fii ñëwuñ fi pour waxtaanee mbiru syndicat ñëwuñ fi pour waxtaanee mbiru diw ak mbiru diw li fi waxtaanee mooy naka la ñuy def ba tëggaat yoon woo xam ne day dëppook état de droit tëggat justice boo xam ne day dëppook démocratie ba képp ku nga xam ne boo duggee ci biir tribunal nga dugg prison foo mënti dugg di nga xam ne say àq ak say yelleef fii dañ ko fay défendre loolu moo am solo ci liñ doon def waaye li fi indi du ñëw pour défendre intérêt corps bi wala intérêt corps bi la moo tax bu ngeen xoolee ñi ñu woo ci waxtaan bi dañu jógee ci ay pàcc yu bare ci réew bi jóge ci ay pàcc yu bare ba nga xam ne waxtaan bi ñuy waxtaan day doon waxtaan boo xam ne du doon waxtaan boo xam ne Masamba moo am intérêt bëgg ko défendre ci kaw intérêt réew li ñu bëgg mu euh, sosoo ci waxtaan bi ñu sum mooy naka la ñuy def ba intere sénégalais yi ak intere Sénégal rek ñu jiital ko ci li nga xam ne moom la ñu sumb muy sopp yoon ba tax na li fi amoon waratu fi am moom la ñuy wax rupture bu ngeen xoolee commission bii di commission modernisation ayu bés bi mu fi def li mu doon waxtaanee lépp mooy naka la ñuy def ba bu fi génnee li nga xam ne day doon ay mesures yu fiy génnee mu doon ay mesures yoo xam ne rupture lay doon maanaam lu bees naka la ñuy def ba yeesal lu bees li bees di conseil constitutionnel bokk na ci xam nga boo xoolee ñi nga xam ne jànguñu droit leneen lañu jàng. waaye dund nañ ci réew mi loo xam ne metti na metti boo xam ne gis nañu loo xam ne du yoon ci réew mi koo ci laaj lu ñuy def ci conseil constitutionnel dafa naan conseil constitutionnel war nañ ko soppi war nañ ko soppi boo laajee technicien dañ la naan dañu war a jógee ci conseil constitutionnel dem ci cour constitutionnel waaye rek du mbirum coppi tur bi waaye sañ-sañ yi ngay jox cour constitutionnel ay sañ-sañ yu bees lay doon suñu constitution dafa défendre àq ak yelleef doomu aadama fi mu ne nii ku bëggoon cour boo xam ne dalay aaral sa àq ak yelleef yooyu jafe na nga am conseil constitutionnel mën na liggéey liggéey boobu sitoyen bi bi nga xam ne dafa am problème kooku war na mën saisir conseil constitutionnel loolu nit ñi waxtaane nañ ko muy benn élément boo xam ne élément de rupture la leneen li nga xam ne soxal na sénégalais yi muy doole ji bare bi nga xam ne procureur de la république am na ko ñépp gis nañu mandat de dépôt yu bare yi ñépp itam gis nañu retour de parquet yu bare yi ñu waxtaanee ko ak ay techniciens yoo xam ne seen liggéey la ñu firndeel ñu ne am na ci ay pratiques yoo xam ne sax dafa dëppoo ak yoon carrément xam nga fi mu ne nii bu ñu doon wax waxi mandat de dépôt bu ñu ko doon wax fii ba suba mandat de dépôt sax dafa illégal loolu yëpp waxtaane nañ ko ba ne li ñu war a def li ñu war a def mooy procureur de la république ñu dindi possibilité yooyu mandat ndax li yoon wax mooy képp ki nga xam ne dañ la jël jébbal la procureur li mu war a def mooy audience bi nga xam ne moo njëkk audience boobu lañ la war a présenter loolu day tax ki nga xam ne dañ ko jàpp ci infraction de flagrance ñu mën ko àttee ci lu mu gën a gaaw waaye di la bàgganteloo diggante cave nangam ak kii di la def retour de parquet loolu c'est totalement illégal donc pratique yoo loo xam ne dafa illégal pratique yooyu la ñu jël di ko continuer di ko def di ko def ba ñenn ñi sax foog ne dañu war a demander au procureur de la république mu leen di may ay euh, euh, retour de parquet kii est une pratique totalement illégale loolu dafa war a jeex ci ci réew moo tax pour aar àq ak yelleefu doomu aadama yi ak ñi nga xam ne dañu jàkkonteeg jànkonteeg justice ñu ne naka la ñuy def ba instituer ku ñuy woowee un juge de liberté et de la détention juge de liberté et de la détention mu doon juge boo xam ne moom loolu rekk lay saytu waaye loolu waxtaan la boo xam ne waxtaan bu technique la boo xam ne dañuy xool juge boobu buñ ko indee teg ko naka lay taxawee diggante moom procureur ak moom ak juge d'instruction loolu waxtaan technique la boo xam ne comme nit ñi proposé nañu ñu instituer le juge de liberté et de la détention il faut que après d'un point de vue technique nit ñi toog waxtaanee yan euh, pexe la ñu jox kii ak ban pexe la ñu jox kele leneen li nga xam ne itam nit ñi laaj nañ ko mooy euh, li ñuy wax juge bi nga xam ne moom mooy saytu waaye wàllu aménagement peine yi ndax bu ngeen xoolee ñu ci bare ñu ngi ci kaso bi waaye malheureusement juge boobu nga xam ne moo leen di jàppale ba seen peine yi ñu mën ko aménager changer ko gàttal ko et cetera loolu itam amul donc ce juge là pour aménager peine yi loolu tamit waxtaan nañ mais xam nga lii yëpp bu ñu ko waxee indi ay juge yu bees day indi itam obligation pour état bi. ñii nga xam ne dañu nekk ci wàllu justice di ci liggéey muy magistrat muy waa administration pénitentiaire nga yokk seen doole yokk seen kàttan boo bëggee indi juge de liberté et la detention bu bees nga indi juge pour l'aménagement des peines bu bees alors que juge yi nga am ci réew mi doyul day laaj nga recruter ay magistrats yu bees day laaj administration pénitentiaire conditions yi nga xam ne détenu yi duggoon ci kaso yi gis nañ ko conditions yi ñuy liggéeyee baaxul administration pénitentiaire seen statut bi nga xam ne ñu ngi koy laaj ay at a ngi nii mënuñu fexe ba jox leen statut bu normal nga administration pénitentiaire nga mettre leen dans de bon conditions garde yi itam yi nga xam ne ñoo ne ci kaso yi nga fay leen salaire bu nga xam ne yenn comportement yi fi détenu yi wax ci lël bi ñu fi amoon comportement yi en diggante yenn garde yi ak détenu yi comportement yooyu salaire bi ñuy am condition yi leen di état bi may dina leen mën a permettre aar leen ci yenn yenn comportement yi li may bëgg wax fii rek mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu yoon magistrat administration pénitentiaire euh, muy greffier yi ñoom itam ci lël bi nee nañu yéen bu ngeen bëggee yoon gën a sax ci réew mi suñu ay conditions de travail foog ngeen xool naka ngeen di def ba conditions yooyu gën a ñëw loolu itam waxtaanee nañ ko fi waxtaanee nañ fi itam euh, yeneen euh, ponk yoo xam ne ponk yu am ama am solo la yu jëm ci. Euh, rupture waaw rupture yi daal moom laa leen gën a euh, euh, firndeel nii waaye waxtaan mi li ñu ci sumb bare na ndax waxtaana nañu acteurs yi ma mooy ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo service public de la nañ ñi nga xam ne ñoo fay ñoo fay liggéey naka la ñuy def ba gën a ñoŋal seen ay conditions travail pour tënk daal lii laa mënoon wax ci ci kàllaama wolof ci lël bi nga xam ne amal nañ ko fii ci semaine bi ñu génn. C'est bon Ok. Donc on va passer au français. Euh, monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye a euh, convié un dialogue national qui porte sur la justice. L'objectif de ce dialogue est justement de voir comment apporter les réformes nécessaires pour qu'au sortir des périodes troubles que nous avons vécu ces derniers mois et années, comment faire en sorte pour avoir une justice qui reflète l'état de droit, mais également une justice qui reflète la démocratie. Pour ce faire, Monsieur le Président de la République a convié à un dialogue qui s'est voulu inclusif. Dialogue inclusif parce que les parties prenantes de ce dialogue ne sont pas seulement les partis, les personnes, les structures qui travaillent de façon quotidienne et directe sur la justice, mais ce sont également toutes les personnes, tous les citoyens sénégalais, qui ont leur mot à dire sur le fonctionnement du service public de la justice. Et la particularité de ce dialogue, c'est qu'à côté de la présence physique de toutes les personnes conviées ici au CICAD de Diamniadio, c'est également la mise en place d'une plateforme en ligne qui a permis à plus de 5000 de nos compatriotes de pouvoir donner leur point de vue sur la justice, sa réforme et sa modernisation. Cette plateforme Jubanti a été visitée par un peu moins de 40 000 personnes qui ont pu justement donner leur point de vue et ces points de vue ont été versés dans les éléments de synthèse que je vous présenterai tout de suite. L'autre élément, c'est que plusieurs de nos compatriotes ont également fait parvenir, par des canaux divers, leurs propositions, leur point de vue sur les questions dont nous avons discuté durant cette semaine. Et ces différents points de vue ces différentes propositions sont également versées dans la synthèse. C'est pour vous dire que ce dialogue-là ne s'est pas seulement limité aux personnes qui étaient présentes ici à Diamniadio. Ce dialogue s'est voulu ouvert et tous les Sénégalais qui, par des moyens numériques ou même par des moyens plus classiques, ont voulu participer à ce dialogue, l'occasion leur a été laissée et dans les annexes, vous verrez toutes les participations qui ont été, toutes les contributions qui ont été justement euh, euh, données pour ce, ce dialogue. J'aimerais revenir avec vous euh, sur la méthodologie. Nous avons, après le lancement des travaux et la réception des termes de référence de la part de le Président de la République, nous avons travaillé autour de deux commissions. Une commission réforme et une deuxième qui porte sur la modernisation. La commission réforme, comme son nom l'indique, a réfléchi sur l'existant. Qu'est-ce qui, de l'indépendance à aujourd'hui, a été fait Est-ce que ce qui a été fait est bien Comment justement modifier ce qui a été fait Parce qu'avant d'avancer, il fallait faire le point, faire l'état de lieu. Donc la commission réforme s'est chargée de cela. Mais on peut, comme on l'a dit en commission, procéder à des réformes sans moderniser. D'où la deuxième commission qui porte sur la modernisation et qu'on aurait pu appeler également commission rupture. Parce qu'encore une fois, ce qui a fait que nous soyons réunis ici à Diamniadio, c'est que ce qui s'est passé ces dernières années autour de la justice, relativement à la justice, que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Et donc, la commission scientifique a demandé à la commission modernisation de faire en sorte pour que cette commission mette en exergue, en avant, les éléments de rupture pour qu'on puisse dire plus jamais ça. Et donc voilà les deux commissions qui ont travaillé. Mais le chantier étant vaste, ce qui a été fait, c'est de dire, nous allons dans chaque commission les subdiviser en deux sous-commissions. Et ces deux sous-commissions ont travaillé, avec à la tête également des rapporteurs et des présidents, des présidents et des rapporteurs, Et c'est tout cela qui a été consolidé pour être présenté aujourd'hui devant vous. Mais je dois dire que une idée a traversé nos différents travaux. L'idée, c'était de, de, de, faire en sorte que la justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais ressemble au peuple sénégalais. Comment faire pour que les justiciables qui entrent dans les cours et tribunaux que la justice qui, est, qui y est dite soit une justice qui leur ressemble. C'est la question de l'imaginaire. Et je dois me réjouir que cette question des imaginaires a été une question prise en charge par tous les groupes, par essentiellement tous les intervenants. Il n'y a pas eu sur cette question des imaginaires, de la représentation de la justice, il n'y a pas eu de voix discordante. Les participants étaient unanimes sur la question de revoir la présentation et la représentation de la justice. Les touches qui ne nous ressemblent pas, le glaive, la balance, etc. Thémis. Comment faire pour que dans nos cours et tribunaux, lorsque les magistrats, les avocats, les huissiers, etc., se présentent, qu'ils se présentent dans une façon telle que nous puissions nous y voir Et cela a été un point fondamental. Et cela participe de l'entreprise de décolonisation de la justice. Et cela également a été un débat dans les commissions. Et dans ces commissions, les participants sont unanimes sur la nécessité pour le secteur de la justice de procéder également à une décolonisation des représentations pour que notre patrimoine Et heureusement, dans nos différents travaux, nous avions également des artistes de toutes les obédiences avec lesquels nous avons beaucoup discuté de comment notre patrimoine culturel peut également aider à revaloriser tout ce qui est imaginaire dans la justice. Donc ça également, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Il faut que la justice qui est dite habite les lieux dans lesquels elle est dite. Et cela est quelque chose d'extrêmement important. Après cela, nous avons également beaucoup discuté sur des éléments de rupture sur lesquels j'aimerais mettre, euh, que j'aimerais mettre en avant. Nous avons beaucoup discuté de la question du Conseil constitutionnel. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. Par moments, il y a eu des rendez-vous manqués qui sont beaucoup plus nombreux que les rares rendez-vous qui ont été respectés. Mais il ne faut que les rendez-vous respectés occultent les nombreux rendez-vous manqués. Et c'est l'occasion aujourd'hui que le président de la République a convoqué des assises, que nous puissions discuter et mettre sur la table la question du Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Il y a également eu des débats sur la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne s'occupe pas seulement de droit, mais comme on l'a dit, le droit dont il s'occupe est un droit très politique. il faut que la composition du Conseil constitutionnel et de la Cour qui est proposée par les travaux, que cette composition puisse refléter justement la variété de composition de la population. Et donc ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on qu arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Cela veut dire quoi Cela veut dire que les membres du Conseil constitutionnel doivent être en activité, que ce soit les magistrats, que ce soit les universitaires, etc., ils doivent être en activité. Donc voilà des propositions de la sorte qui ont été faites concernant le Conseil constitutionnel. Mais également, il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, de, de, nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Mais cela va appeler naturellement de la part des techniciens un travail d'équilibrage entre les pouvoirs du procureur de la République et les pouvoirs du juge d'instruction parce que la Commission a fait également euh, des recommandations sur le rapport entre le procureur et le juge d'instruction, notamment dans la capacité du procureur de la République de s'opposer aux avis de liberté provisoire donnés par, aux ordonnances de liberté provisoire données par le juge d'instruction. Donc, comment faire pour maîtriser, mieux réguler, mieux organiser les pouvoirs du procureur de la République. Donc ça également, on en a beaucoup discuté et je pense que sur ces questions, euh, les magistrats présents dans la salle, procureurs de la République, ont tous relevé le caractère illégal de certaines pratiques qui sont bien installées, bien cristallisées dans les juridictions. L'idée, ce n'est pas euh, d'annuler ces pratiques parce qu'elles sont des pratiques illégales, mais l'idée, c'est de rappeler justement à plus d'orthodoxie dans la mise en œuvre de, de certaines pratiques. Mais qui dit Euh, euh, réforme dit également obligation de revoir les conditions de travail des personnels qui sont dans le secteur de la justice. Je pense aux greffiers, je pense aux magistrats et je pense surtout à l'administration pénitentiaire. Les ex-détenus qui ont participé très utilement à nos différents travaux, l'administration pénitentiaire qui était également très fortement présente dans les travaux, ont montré la nécessité pour l'État d'investir massivement dans les lieux de privation de liberté. Ce sont des lieux où l'individu peut très rapidement être privé de sa dignité. Et le standards de nos prisons au Sénégal, le, le, niveau est extrêmement bas et un, des efforts doivent être faits au niveau des lieux de privation de liberté, notamment en adoptant le statut de l'administration pénitentiaire, qui est un corps dont les conditions de travail ne sont pas bonnes du tout. Et un élément fort de plaidoyer qui est ressorti de nos travaux est de voir comment améliorer les conditions de travail de l'administration pénitentiaire. C'est le cas également des greffiers, qui sont beaucoup revenus sur l'amélioration de leurs conditions. C'est le cas également des magistrats, dont le nombre est insuffisant mais c'est également le cas des avocats. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons plus de magistrats que d'avocats. Et cela pose un problème d'accès à la justice et d'accès au droit. Vous ne pouvez pas dire nous voulons régler le problème de l'accès lorsqu'il y a plus de magistrats que d'avocats. Il y a 531 magistrats en activité, il y a 400 et quelques avocats qui sont en activité. Donc cela pose un problème. Donc il a été discuté la question de comment faire pour que toutes les professions judiciaires, les auxiliaires de justice, puissent très souvent organiser les concours d'accès. Avocats, notaires, huissiers de justice, les experts, comment faciliter et rendre réguliers justement les, les concours d'accès et également augmenter le nombre de magistrats pour que nous puissions, toutes les réformes qui portent sur euh, la magistrature, notamment le juge des libertés de la détention, que ces réformes-là puissent être mises en place, parce qu'avec 500 et quelques magistrats, dont certains sont en détachement, vous aurez beaucoup de mal, en multipliant les nouvelles fonctions, trouver le personnel nécessaire pour faire le travail. Merci. Oui, il y a, un point important, c'est la, la question de la présence du président de la République et de l'ouverture dans le Conseil supérieur de, magi, de la magistrature et de l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à d'autres à des personnes venant d'autres secteurs. Sur la question de l'ouverture, il y a eu un avis très fort qui consistait à dire qu'il fallait ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne soit pas seulement ce Conseil composé de magistrats. Il y a cette recommandation forte qui est faite, mais l'avis contraire qui a été aussi euh, soulevé par certains participants qui estiment qu'on ne devrait pas ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à d'autres professions. Donc cette question-là euh, est sur la table mais ne fait pas l'objet d'un consensus. La deuxième question qui a été soulevée, c'est la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République, qui en soi est une violation de la séparation des pouvoirs si on admet que la magistrature relève du pouvoir judiciaire. Cette recommandation également a été une recommandation très forte pour dire que le président de la République ne doit pas présider le Conseil supérieur de la magistrature, que l'on doit réformer ce Conseil supérieur de la magistrature, mais sur cette question, quelques participants ont également émis un avis contraire. Sur ces différentes questions, les rapports qui seront parvenus au président de la République mentionneront les points de convergence et les dissonances qui ont été relevées par certains participants sur la non-présidence du Conseil supérieur par le président de la République et également sur l'ouverture de ce même Conseil à d'autres personnes qui ne seraient pas seulement des magistrats. Merci beaucoup. Euh, point bi nii euh, waaw euh, Conseil supérieur de la magistrature waxtaane nañ Euh, ci ñaari fànn benn bi mooy est-ce que président de la république dafa war a continuer nekk président conseil supérieur de la magistrature beneen bi mooy est-ce que conseil supérieur de la magistrature dañ ko war a ubbi ba nga xam ne yeneen nit ñoo xam ne du ñu ay magistrat dinañ fa war a mën a toog li ëpp nag ci ñi nekkoon ci lël bi dañu jàpp ne président de la république waratul doon président conseil supérieur de la magistrature ñi ëpp ci lël bi loolu lañ jàpp waaye am na ñoo xam ne bokk nañ ci waxtaan bi ñoom jàpp nañ ne président dafa war a wéy di doon président du conseil supérieur de la magistrature bu ma dellu see ci ubbi conseil supérieur de la magistrature boole ci ñoo xam ne du ñu ay magistrat ñu war fa mën a toog di dogal ak magistrat yi ñu ci bari ci lël bi itam jàpp nañ ne war nañ ko mën a ubbi ndax am na réew yu bari ci àdduna bi ñoom ubbi nañ seen conseil supérieur la magistrature booy xool itam fii ci réew mi yenn yenn conseil yi comme université yi yooyu ubbi nañ ko waaye ñenn ñi itam ñu bokk ci waxtaan wi ñoom jàpp nañ ne loolu du lu gën ñoom pour ñoom li gën mooy magistrat yi continuer ñoom seen conseil supérieur ñoom dong ñu continuer di fa ba tax na li waxtaan wi euh, jàpp mooy rapport bi nga xam ne dinañ ko jébbal euh, bu neexee yàlla président de la république liñ ko ciy wax mooy. président de la république nekk président conseil supérieur de la magistrature ñi ëpp ci waxtaan bi d'accord nañ ci waaye am nañu ci d'accord ndax loolu moo génn ci waxtaan ndax dëgg neex yàlla deuxième euh, constat bi mooy ouverture bi ñi ci ëpp itam jàpp nañ ne war nañu ubbi waaye am na ñoo xam ne jàpp nañu ne waruñu ubbi loolu nag bu ñu ko jëb jébbalee euh, président de la république moom ci ay sañ-sañam mooy xool ban décision lay jël wasalaam. Hmm? euh, professeur Jean-Louis Correa. <laughs>